Une revue de presse. Ok, là, je remets les Sénégal éliminé nañ ko toog na ñàkk jom réew mi quotidien ne jéppare tribune yéen kaay ne ñun kay nañ leen bennoo rek bokk gàcce gi maa la wax lii la populaire ne tey adduna bu tukkee ngóog tribune yéen kaay ne Didier Drogba ah ëllëgu am réew lumbu la jël kon daal di koy lem maa la wax li lee Didier Drogba nag daal dinay weddi kon xoyu séeréer ya parce saltige yi dañoo xam le woon ne Sénégal ci boppam kon mooy jël coupe d'Afrique bii yéen kaay gi ne du doon kon coupe de ah Drogba fa jaar Sénégal ci boppam waxuma leen ne da dem ta coupe d'Afrique bee waaye sax sàgganee footballam ci boppam ko nanañu yëkkati ay daan lal ko ci ndoddam waaw waaw le soleil yéene ne ko bul sonn sax am na ci ay daan yoo xam ne kay fi nekk nii mi ngi tegu suñ kaw bopp ah ndax la xew ca stade Léopold Sédar Senghor te lu tolloog juróom-benn fukk ci ay doomu aadama kon am nañ ca ay gaañu-gaañu termine yéene ne ma ne gouvernement bi ci boppam danañ ci indi ay coppite Alaaji Malick Gakou ministre des sports ah dana bokk ca coppite ko wax te ka mën nag moo gañe yéen a gi ne am na ñoo xam ne ñu ngi rey seen bopp fi mu nekk ni la de ah ngir président fédération bi maître Augustin Senghor waaw ak ña nekk ca fédération ba yëpp gars yi kon jëlee leen tekki seen doom ba laa lay wax ni le le pays au quotidien ne tey waa Côte d'Ivoire tas nañu kon yaakaarug sénégalais yi lé supporteru sénégalais yi commencé kon di sànni nag maanaam ay xeer ay kanet ak ak yeneen yeneen ca biir rumbux loogoo gee ministre Alaaji ñu daal di koy xaañ jàpp ci boppam doon xool nag ba xam maanaam am na kon popularité nit ñi bëgg nañ ko wala bëgguñu ko yoo yee ma ne docteur ba nga xam ne moo ko waroon a ca boppam da koo mujj gedd waaw waaw médecin wu sami la dalee na mujj kon gedd bàyyi leen foofee alaaji Maalik Gàkku nag di jéem a testé xool ba xam nit ñi bëgg nañ ko bëgguñ koo code de popularité mag nangam sàngam ak boppa niteel marte Italie waaw waaw ma ne Maalik Gàkku jéemoon na fee jubóole Balla Gaye ak Modou Lo jënd ay billet kon jox douzième gaynde daal di installé ci biir quartier banlieue bi ay gàkku booy si ay association loolee lépp ngir jéem a daal daal maanaam xool code de popularité ba xam nit ñi bëgg nañ ko bëgguñ ko ah lii moo waral kon gàcceem ji barki dee boo njaay ca stade Léopold Senghor tribune yéene kay ne mani dana bokk ci ministre yi ñuy wàcce de réew mi quotidien ndaw gàcce gu rëy lii ma ne la mënuñoo wannaasu kon gàcce gu ni mel waaye danañu ko wannaasu de te nag heure wax dëgg bu jotee kon nañ leen am njàmbaar te wax ko match bii c'est le match de la honte lii gàcce la te nañ le ko waxa règlement de compte la entre sénégalais xanaa xamoo leen ne match samedi bi nekkuloon diggante Sénégal sénégalais la waaw waaw tànk kilifa yi nga xam ne kon ñoom lañ dénk wàllum football bi arrêté wuñ bi nga xam ne maanaam moom la nekkee seen biir ah footballu Sénégal du jug mukk ci gàcce gu ni déception wu ni mel te li wóor mooy am na ay kilifa yoo xam ne ña nga nekk ca kaw waaw mës ñoo bëgg ñii nga xam ne ñoo jiite football bi kon am ndam maanaam bëgg-bëgg sa réew gi ñuy wax wàllum patriotisme bi c'est pas vrai du la ñu fi du monde ba keroog alaaji Malick si suri ne sàcc la i maa wax li la de ci télévision nationale la koy su njaay kon tuumaal moom Malick si suri ne sàcc la waaye ñi dikkaat di ñoom mbéy ndooy ah amuñu ndam lu tax amuñu ndam parce que ñenn ñu jege alaaji Malick si suri ñoo xamle woon ne alaaji Malick si suri tànk baalu wuñ ko ah Sénégal dootul gagné dara ba dara booloo jeex sàmb bi yàgg yemu ca nee na lu nekk nag jaar na fii CCPC jaar na fi ñu naan dañuy defaraat ca élection ba waaw mu ëlbatiku nag nekkaat CFAM fédération bi jàppante na fi kon ak Amara Traoré jàppante fi kon ak Alaaji Diouf Zor Alaaji Diouf Zor moom mais eh yëkkati ay kàddu xam leen ne tant que convoqué wuñu ko ah Sénégal dootul gagné dara réew mi quotidien na ci prix ca gàcce laas ne sénégalais ñaari yoon kon lañ leen toroxal humilier leen toroxal leen ba noonu tott totoral bu njëkk bi mooy dañ leen a dóor ba ñuy bëgg dee ñaareel bi mooy wàllum Samba moom la ñu nimiku ca stade ba stade yéene kaay la ca ko de waa CAF ak waa FIFA ñu dénk leen football bi danañu yëkkati ay daan lal ko ci ndoddug Sénégal bul sax sonn dàq ñu ci coupe du monde ak coupe d'Afrique 2015 mi quotidien ci prix quelle honte li gàcce la Sénégal ci boppam nag ah boo sàgganee article 153 bu code discipline bu CAF dana dal suñu ndodd de maanaam tere ñu ñu footballee ci benn stade wala boog huis clos stade boo xam ne benn supporter du fa dugg wa ilaa footballee ji kon terrain neutre réew dégagé waaye jugaleen fii waaye yéen xoolal ma Joseph Koto 4 2 4 fan la amati ñeenti défenseur ñaari milieu terrain ak ñeenti attaquant Joseph Koto daal paaka la jël rek daal di koy dabbus ci góomu gaynde gi télé xamuñ dara dégagé jugaleen file Louis Lamont télé incapable dégagé Amadou Kane télé incapable xamuñ dara dégagé Abdoulaye Sow télé incapable dégagé Moussa Diaw Dieng télé incapable dégagé Ibrahima Traoré télé incapable dégagé Papis Demba ne drogue ba day dakaaru njaay jël jóob la jaxal ba muy jax-jaxi maa la ko wax waaye yaanaa maar a nga waaj a jaxal de le populaire ne Fadel Barro mi jiite yaanaa ci le populaire ne ci ndaal bu naree neex ba ba xee xeeñ waaye lii di xeeñ nii yorin gu bon la juróom benn weer ginnaaw ba Macky Sall kon faloo ak léegi Fadel Barro ne lii Fou Malade wax waaw ñu nit moom la wax de sentir nañu ne sénégalais kon ñu ngi commencé di mer maa la wax li lée di yoo xam ne yu méttee métti la moom la ñu dugal fii ci biir réew mi te ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum ginaar ci biir réew mi boo sàgganee fanweeri junni trente mille ci nit ñoo xam ni kon ña ngi yëngu seen liggéey dana yàqu de mar taali laa ilaha illallah daba nii ñuy addoo nguuru Macky Sall gi defagul daa ba dara booloo jeex jàngalekat yaa ngi nii di kaas boo sàgganee grève léegi mu juddooti laa ilaha illallah ndaw ya nekk ca Kolobaan nga nee ca kaso ndaw ya nekk ca Jasa nga nee ca kaso te ñoo ñee liggéeyal Omar Faye ne yow jamonoy Ablaye Wade xanaa gën a gàtt gën a gàtt gën a yées nit ñi doon nañ dundee sax yaakaar waaye Macky Sall mii yaakaar gu tas la désespoir total réew mi fi mu nekk nii ci dëj la ñu ne dégg Omar Faye ne ah kay ma ne wàllu njàng meeg mi ci dëj la ñu ne wàllum xaalis bi ci dëkk bi deelee nañu ci dëj la ñu ne dundinu askan wi faatu na ci dëj lañ ne wàllum courant bi rob nañu ko ci dëj la ñu ne te lii lépp taxul kon nguur gi jël benn dogal Abdoulaye Baldé ci laas dara doxul ci réew mi juróom benn weer ginnaaw ba Macky ni bay bu ma ci tribune yéen kaay ne rien ne va dara doxul ba dara booloo jeex wala mbay mii dara doxu ca courant bi dara doxu ca xëyub goney des jeunes dara doxu ca dundinu askan lii dara doxu ca rien ne va dara doxul ba dara booloo jeex bi Macky Sall dikkee kon ak léegi ni lay cay alaaji cay alaaji waa Sumer côté xar yi moom mi ngi dox wala doxul. mais kon alaaji tëjal.